waaw euh, en fait ça rejoint un peu conclusion wu El Hadj Sànq ak li ngeen posé woon qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette euh, de cette impasse où on se trouve où se trouve la démocratie sénégalaise avoir des institutions fortes mm bu fi ñëw na wax institution yu dëgër moom wax na ko sànq ne liñ fi duut baaraam lu bëri mënoon nañ ko saafarawee assemblée mais lu tax assemblée ba nekk benn bloc bloqué loolu war nañ ko xool justice bi parce que lii nga junj nii ci justice bi la dem recours Ousmane Sonko yi euh, liñ ko xañ fiche de parrainage ak euh, recours yi mu def yépp si domaine bu nekk loolu justice bi lañ ci la soo dégloo li ci gën a bëri mhm. ça veut dire aujourd'hui sénégalais yi seen bopp en tout cas il y a une perception par rapport à la justice est-ce que cette justice sénégalaise là mhm. Euh, nekk na fi mbaxane nekkee benn ndax moom la loolu la war a nekk loolu tax na ba jiixi jaaxa ci mbiru Ousmane Sonko ak ci mbiru ñeneen ñu bari ñu am gàllankoor ak justice day tax ba am jindi jiixi jaaxa ci xelu sénégalais yi donc pour dellu si institution fort yooyu nga xam ne tant que teguñu ko si réew mi ñu boole ñëpp amul kumba am ndey ak kumba amul ndey parce que impression boobu la nit ñi am. Mhm. ñu jëlee ko ci réew mi. pour ñëw ci yëf Ousmane Sonko je pas suivi xaw ma tey bu ñu mujjee seen recours. Mhm. Mhm. dañ ko rejeté dans le fond. dañ ko dans le fond. donc je n'avais pas suivi ça. parce que dama nekkoon ci dëj yi di jaale. Euh, mais tu vas entendre les gens vont dire que sànn ne bettul kenn. xam nga ñëpp dinañ ne bettuñ kenn. parce que à chaque fois. lan la ñuy wax justice bi jéng na euh, man tamit dama xalaat ne ñun Sénégal yëpp kenn ci ñun amul intérêt ñu bañ a am fu ñuy àttee nit ñi tey la preuve est que Ousmane Sonko parce que man fi nga xamee ne rek démarche am lu bëri nekk na loo xam ne pour man déranger na ma mooy buñ la woowee ne wuy jël justice mhm. nga ni du ma dem weddi naa justice du ma demati justice euh, point barre la justice la preuve aujourd'hui justice baa ngi nii donc kenn ci ñun amul intérêt affaiblir justice su réew mi mhm. muy ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi mhm. muy ñi nga xam ne ñoo koy wute jiite mooy ñi nekk opposition muy sénégalais lambda bi amuñu ci intérêt am na fi ay hommes politiques yoo xam ne dañ leen a woo dañoo dem justice ñu jugé leen donc soo xamee ne fa ngay mujj kon nag njëkkee fa ma conviction profonde est que il a les meilleurs avocats du Sénégal mm -hmm. dans toutes ces affaires là yi nga xam ne moom tey moom la am en justice et que su ci demoon ba jeex xeex ànd ak ay conseil am yooyu wóor na ma ne lu bëri lu ko ci fekk du ko ci doon fekk tey. Mhm. d'accord c'est ma conviction profonde. Mhm. maintenant nag il faut que fi ñu toll nii ñu jéem a ut ay buntu apaisement ci réew mi. Mhm. nañ waxante dëgg. nañ jéem a wut buntu apaisement ci réew mi. yoo xam ne mën nañ ko toog parce que nag ça c'est des dossiers politiques. dossier politique yi Sénégal ba mu santee njaay ba léegi ak ba mu nekkee Sénégal ba léegi ñeneen ñi tam ñu ne lu sax santul tin lu tax <laughs> santul Diop waaye ba Sénégal nekkee Sénégal ba léegi <laughs> wala Sénégal Diop <laughs> ba mu nekkee Sénégal ba léegi problème politique yi gën a tar fii ci réew mi du justice lañ ko réglé d'accord dañu ko waxtaane waxtaane d'accord même guerre yi gën a mag ci monde bi c'est partout dans le dañu ko waxtaane mhm. pour génn ci d'accord donc dina ma tontu ne woote woon nañ dialogue ñu bañ a dem balaa mu tey yegg. <laughs> waaw waaye waxtaan xoolal luy defar. mooy sooy wut jàmm booy wut apaisement donc. waroo tëj buntu. absolument waaw donc man je pense que dans cette affaire usman Sonko là. Mm-hmm. Mm-hmm. il y a eu mm-hmm. de chaque côté. le fait déjà de dire la justice duma fa demati pare naa ci gëmatuma ko sànni ko fële tey boo fa demee it. soo moytu sax ñoom ñooñu nañ lay jugé yi ah du ñàkk ah danañ nga xaw a jéppi ah? <laughs> loolu am na